fukkeeli juróom bi nga xam yoon boo xam ne ñu ngi koy fàttaliku génn àdduna Sembène Ousmane bi wax ne euh, li mu xaatim ak film ko euh, mën na yar ku ne mën na aussi sukkali dëkk bi ci la ñu jëlee nag ren daare Sembène ne ñu jàngale ci télévision yi parce que télévision mën nañ ci jàngale ñu gis ne euh, télévision dafa am dafa tum jàngale ci télévision dafa tumu ranke fi ñu toll fi mu nekk nii ma wax la ci sax ne xale yi ndaw yi sax amuñu programme ci télévision yi bu weesoo télévision publique bu ne Sénégal di def tamit émission ci mag ñi benn émission mag amul ci télévision yi yeneen yi te ñuy wax nag ne euh, pàcc euh, télévision ku nekk war na ci mën a gis boppam pàcc askan bi yëpp ndaw ñi mag ñi ñëpp ci war a gis seen bopp ñëpp ci war a mën a jëlee dara ñu ne nag kon il faut que ñu xoolaat émission télévision yi il faut ñu xoolaat daal di ko ëblati fexe ba nga xamante ni même éducation civique mooy jàngale ni ngay dunde si àdduna ni nga war a doxale bi nga xamante nii nii nii nii dañ ne dafa tumuranke ci Sénégal tey gii rek télévision mënoon na def lépp tey télévision waroon na wax sénégalais yi tuuti rek ci spot yi ndaw a ndaw a ndaw ne leen di sànni si mbedd mi baaxul ak leneen ak leneen dëkkale ko ci seen nopp yi ndaxte bu yàggee li naan boo dëkkalee wax ci nopp nit bu yàggee mun na na xaaral ma mun ci góorgóorlu ndaxte bu soo ñu ne xanaa kii seetaanu télé lu tax muy doxale nii dina tax moom mu mun a doxaleel bu baax. ja dafa di ko nga xamante ni euh, moom ci boppam yàgg wax ne dafa am. ku ku ku am xam-xam la ci li muy def ba pare eh, kuy yare la waaye ñu dem ba ci yàgg rek gis ku caa muy jalgati ba ñu bindaat beneen article parce que ñun tamit loolu mooy suñu liggéey ah eh, bind article comme dañuy nekk di xool li nekk ci programme télévision yi mooy suñu liggéey bi nga xam ne professeur université bi ñu doon si lañ ci liggéey alors euh, bi ñu ko ko waxee bind ko mu siiw ñu gis ne Kouthia dafa defaraat ba mu baax ba nga xam ne li muy liggéey lépp lëpp mën na jàngale lu bëri ci askan bi ñu ne il faut que nag ñu yëkkati Kouthia te bu ñu koy yëkkati loolu fekk na sax euh, am na lu xew diggante nag benn tele boobu sax amagul. bi ñuy bi ñuy bi ñuy bi ñuy xalaat lii nii far nag ñun naan tombé mooy indi ay gaf ñu gis ne Kouthia ku jara ku jara jàppale la parce que mi ngi reetaanloo nit ñi mais mi ngi yaraale nit ñi aussi. lekk l'état taxaw si mooy que ne mënuñu toog ci dëkk bu nga xamante ni ku jóg rek def film. yore pistolet ci ay nit ñu ñuul ay sénégalais sant Diop sant Ndiaye jigéen ñi sol ay yére militaire di xeex ah, di pistolet xale bi daf naan ah man dama faa ñi xam nga ñun mag ñi bu bu ñu den ne ah ñi de dañuy jouer rek mais xale yi daf koy dund daf koy dund moo tax boo gisee agression yi am ci diggante xale yëpp télévision am na ci pàcc moo tax nag ñu ne ñu ngi o état mu taxaw pour télévision yi jaar yoon parce que gis nga télévision ni mu mënee ni mu mënee raxas bopp nit nañ fexe ba mu raxas bopp nit ñi ci lu baax di nga gis ne Sénégal dafay jëm kanam